dal nag ak jàmm seen ànd ak seen seen youtube tas info bu diggat nga abonné nga mën am lépp loo xam te ne information yu bees la actualité buzz religion lépp loo xam te actualité la nga mën di ko am kii di eh, Viviane Chidid nduur moom moomee jamono ji gisees nañ ko fële ca Madinatul Munawara loolee nag moom moo ko publier gannaaw photo boo xam te ne amaloon na ko moom ak doomam ji di Zeyna Ndour loolee nag ñu bëri bëri di susciter ay débat ci ni kat ndax moom Viviane Ndour daa bëgg demaale ci gannaaw feet gi xam te ne moo am mu mën a demaale fële ca Màkka ngir mën a def li nga xam te ne moo di ab ajam loolee nag ba léegi nii amee gu ci firnde ndax kat lam defagoon ba léegi ni moo di image bi nga xam te ne moom la gisagoon bu nekk moom mi ca fële ca madinatul munawara moom moomee di kii di Viviane Chidid ma nga ca ànd nag ak ki nga xamante ni moo di doomam di Zeyna Ndour ñu bëree bëri nag ña ngay continuer question yi nga xamante ni moom lañ ci amal waaye moom Viviane indeegu ci génnagu ci indegu ci yëy yàbbi ci li nga xamante ne nit ñi ñu ngi koy wax ci ni ndax daa demaale ngir def li nga xamante moo di ab ajam mu di juróomeelu pilier ci lislaam loole nag moom moomee ñëpp a ngi koy xaar ci tontu goo xam ne war na ko ci andi